leen ndokkeel itam di sàkk seen ñaan di leen ñaanal jotaay bu ñu daje it di ñaan suñu borom def ko mu bañ a doon jotaayu neen jotaay boo xam ne ku fi dikk ku jóge fi suñu borom pour sa ay bàkkaar bindal la yiw jubal la defal la tawféq ak najaa mboolem masaayik étaay bi leen tax mu fee toog lu yàlla ak yonent bi fàttalente fàttaliku fàttali bi lu mu tàmbalee moo di dellu fonkaat digali suñu borom yi fàttaliku tereem yi digalam yi mooy farata yi farata nag moo gën a foor lépp lu doomu aadama ittewoo ñaari rakkaay farata moo ëpp doole junni rakkaay naafila te naafila gannaaw bu farata matee lañ koy soog a seet bu farata baaxul duñ seet naafila farata mooy lan mooy warugar yi nga xam ne suñu borom daf ko digle te dogu ca lu ñu digle te dogu ca mooy farata mooy li mun la ñàkk farata mooy loo xam ne soo ko defee am tuyaaba soo ko sellalee soo ko bàyyee am bàkkaar bu diis te la cay tegu ci jëf ñu tuddee ko naafil la mooy loo xam ne gannaaw bu farata ji wéyee la bu lee sellul suñu borom du ko nangu yàlla gënal wala sa gënal kon war na ci bépp jullit bu xam lu farata yi xam lu sunna yi xam na mu koy jëfee mooy tax bu ëllëgee buñ ko seetee mu sell wala fekk nga def ca li nga mënoon lépp sa lu baax lu ñëwati ñu nangu ko màggal yoon ba nga mucc bu matul nag te farata yépp julli lañ ci njëkk a seet soog ci teg leneen atte diggante jaam ñi atte deret la ñuy njëkk a atte deret ci doomu aadama génn ci yaramum beneen doomu aadama te du ci jihaar du ci yar du ci wane lislaam li ñu tuddee géttan mooy nga def lii lii war ci li ci war ci mbugal ñu def la ko deret ci tuuru deret jooju ña ko génne ngir saxal sharia tuyaaba la ñuy am joo xam ne na seen yéene toll ci sellal lay toll deret kon lu diis la ci xaqi doomu aadama ak moroomam bala ñu ciy dugg deret li ñu njëkk a waxtaane maanaam deret bi suñu borom fooral la caaxaan war a koo génne génne ko ci dëgg lu diis la génne ko ci caaxaan nag ba tey lu diis la ca geneen wet ga mooy wet rafet yu gën dañu wax ne deret yi way jihaar ñi deret yi ñu tuur ci yéefar yi ak ñoom seen deret ci yéefar yi tuur jamal xiyaam dañ koy peeseek rangoo ñi ñi ragal yàlla ba di fanaan yi julli boole ko ay jooy te njàqare ak ngir bëgg suñu borom ak ngir ragal ko ñaari deret yooyu lañuy peeseek daa yi wala maaw yi nga xam ne ñoo xam ne diine yàlla ji di yee nit ñi di leen jubbant di leen jurub di leen tiital di leen fàttali ëllëg ñetti ndox yooyu la ñuy peese ëllëg lu ci ëpp tuyaaba derete ñi jihaar ba dee ci jihaar ngir yàlla ak yonent ak lislaam rangoon ñi ragalkati yàlla yooyu ak daa yi ulama yu ko binde téere yi téere yi lañuy peese ëllëg kon sag koo xam farata lu itteel la moo tax sallallahu taala alayhi wa sallam ne utlubul ilma walaw fi siini da ngeen sàkku ci xam-xam doon te da ngeen di dem ba ca Siin mooy Chine Siin la ko arab yi wax dañ koy wax li ñu tuddee ay moyen de communication diggante ñaari dëkk ñi soree ñuy waxante wala demante ka dikkante lu jafe woon la ci jamono boobu kon jógee fii ñu wax léegi Arabie saoudite ba Siin sore sore sore sore yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na ngeen wut ci xam-xam ba foog jar na ko ba foog sax kon loolu am am solo la ndax diine ji nga xam ne amuloo lu dul moom moo lay tax a mucc ci ëllëg mënuloo koo am te xam lu xam lu nag yomb na ku nekk fi nga toll foo toll rek mën nga faa xam foo gis ku la tane nga laaj ko foo mën a xamee nga jéem faa xamee mu jaral la ko boo defee sa yéene jooju boo defee li nga mën lépp te àgguloo ci fa nga bëggoon suñu borom dana la fa àggale ndax sa yéene jooju ko mën yaxruj min bayti muhajiran ila llahi wa rasulihi summa yudrikuhu mawtu faqad waqaa ajruhu ala allah képp ku génne sa néeg gàddaay jëm ci yàlla ak bu yonentam dee fekk la ci yoon wi sa yool mat na sëkk mel nga ne àgg nga ndax yéene ji niyatu moom ne ablahu min amali kon nit ki bu fekkente ne amul benn responsabilité moom si jëmmam rek la war naa xam lu ay farataam bu fekkee am na ku mu yilif ku nekk ci suufu kilifteem féet kooka mënagula xam lu boppam moom war na ko koo xamal wala bu ëllëgee bu ñu layoo kooka yey ko lu ittee la ngokk bu fekkente ne nag war-war yooyu nga xam ne suñu borom daf ko teg ci suñu loos mu war nu te dara mënu la tax mu wàcc na lu dul mu tële ko ba yàlla xam ne tële nañ ko wala mu def ko ba nopp ba génn ci gannaaw loolu doo nga mënu tàmbali moom li nga xam ne nag mooy tax mu war na te duñ ko mën a def ay bunt la bunt yi ci ëpp mooy xër ci àdduna xër ci mbiri àdduna bëgg njëriñal àdduna lool ba mu dox sa digganteeg lu mu doon wut njëriñ sa àdduna lu mu tuut tuut jaral la loo xam ne lu tuuti ci jaamu yàlla jaral la ko boo toll di ci xalaat lu la koy may ko defee ngay daal di fàtte dee te fàtte dee day alake day alak nit ki dëkk nit ki ci dundam war naa am royukaay ndax bind bu tooy bis bu ne nga am ko ay yoon nga ko mën a am nga ko am ci waajoo xamoon ak farloom lool ak njàmbaaram lool ak ragal yàlla ngay delloo si image am maanaam xiimaam fi mu tolloon na mu mel nga di ko roy loola di la encouragé lan la jëmm ji jëmm ji nga xam ne moom la ñëpp war a roy te annabi Mustafa alayhi salaatu wasalaam yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom la jëm ñëpp war a roy ñi ko roy nag ba am sol ba am ci melow yàlla bëgg melow ñu baax ñu naw ñooñu ci roy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sopp ko ci la bunti mbaax yëpp di ubbi ko ci kam na nga ko sopp ak kam na nga ko roye roy bi ci zahir rek waaye roy jéem a roy ci zahir ak ci baatin jëmm ji nga xam ne day roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy jullee toppatoo ko ba xam ko di ko jullee yeneen xeet ci jaamu yàlla yëpp nga di ko def te jéemuloo roy ko ci sellal sa xol génne sa xel ci rëy wàcce sa bopp koo gis jàpp ne moo la gën ndax nga ne la nga fa yàlla kenn xamul ci gën kenn du ki dàq jaamu yàlla wóorul ne moo gën ndax xamul lu muy mujje ki gën a sàggan xamul ndax moo yées wala déet ndax xamul lu muy mujje nit ki mën na jeexal dundam yëpp ci jaamu yàlla ba dese diir bu gàtt bu jàdd yoon yi naka la leen safaan bi sidna Omar radiyallahu anhu am na jamono yoo xam ne boo ko gisee xeeb ko boo ko gisee yàpp ko boo ko gisee sikk ko ngir kéefat booba tuubagul bi mu tuubee mu mujj kenn doon gannaaw yonent bi kenn doon ku féete ko mu di Abu Bakar Siddiq xam ne kon fi mu jógee ak fi mu jëm sori yoon te bi mu nekkee ci kéefar bi foogul woon loolu bi muy tuubi li ko taxoon a jëf moo di rey Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga gis nag fekk booba suñu borom bind na ko bu bokk ca siddiqoone yi gën a dite kaw mu mujjee noonu gis Ibrahima yi Adham wàllu kaamil la te doomu buur la woon boo xam ne dafa nekkoon rek ci nguur fu ngay lu ne am beneen bi ci laa wax coupeur de route maanaam rugga dokkatu yoon la di rey nit ñi mujj gi mu bokk ci wàll yi gën a kawe xam ne kon doomu aadama bu fekkee ne kum gis bu la magee xalaat ne xëy na moo la njëkk a jàdd yoon ndax moo la mag kon moo la bàkkaar moo la njëkk a am bàkkaar boo ko magee nga xalaat ne bu la magee nga xalaat ne kii moo la njëkk a jaamu yàlla moo la njëkk a topp digali lislaam nga ne kon moo la gën ko defee da nga wàcc doo foog ne yaa gën kenn boo dee seetlu say jàdd-jàdd say juum-juum ak say càggante def ko ci sa bopp jiital ko ci sa kanam doo xalaat ne yaa gën kenn boo bëggee góorgóorlu nag da ngay fàtte ñi nga xam ne mooy sàggan lañu ba nga jàpp ne yaa leen tane da ngay seet rek ñu ne féete kaw nga leen jéem a daf wala ngay jéem a mel na ñoom ko defee da nga ci góorgóorlu waxtu ne li lay dimbali bu fekkee ne sàggan nga sa jéego bu njëkk moo di sas sa bopp léeg-léeg toog ba mu yàgg nga ne tey jii naa def nangam ndax bu fekkee ne da nga fas yéene da nga yàlla daf la bindee sàggan wala amuloo kattan nga ne naa fas yéenee mel nii dana yàgg nga yokkat waaye bu fekkee ne da nga sas sa bopp dagg loo xam ne da nga ne tey jii naa ko def loolu gannaaw gàtt na da nga naan naa ko def génn ci bu ëllëgee nga waxaat ko bu ëllëgee nga defaat day mujj nga tàmm ko ba mu doon sa aw melo tey jii naa sarxe nangam tey jii naa ziyaare ji bàmmeelu wàllu sàngam nitu yàlla sàngam ne tey jii naa def téeméeri junni salaatu ala nabi wala téeméeri junni lexlaas la nangam nga def ko mu wóor la ne tey bis bi nga ko defee ci nga gën ëllëg ba nga ko deful bis boo toxtalee ñaari fan di ko def ñaari fan ñooñu moo gën ci li nga wees sa dund ëllëgee boo taxawee ci kanam yàlla ba ñu wan la sa dund bis yi nga wees yépp bis yi nga deful dara yépp di neen bis yooyu dina la jégal waaye bu boobaa it képp ku la ëpp bis li mu liggéeyal yàlla ëppi la ko daraja gën la ko dale xel gën la dégg góorgóorlu rek ci li nit di amee li mu bëgg képp ku la gën a góorgóorlu raw la bu kaanal afdal al mutafaddil in muddatil aydi min azdaadi man xaqin fi ajalihi in ashaa alqawmi ahkam وما بعد إلا بستة أن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل كي جيما جن موي جن فاو كي جيما راو موي راو كي جيما تاني موي تاني ndax moom la xelam di nekk ci raw muy jëf lu war a tax bu raw ki nga xam ne yoonam nekkul ci dara dunduk addunaam gi rek lay seet bu ëllëgee dana rëccu rëccu bu gën a metti bu fekkente ne doomu aadama dundit la seet bi ci gannaawam li mu jëf ak ni muy saxee ci bàmmeel ndax li mu jëfagul doy na ngir li muy yàgg ci bàmmeel li bëgg a saati taxaw ko seetee dana xeeb jëfam kon dana ko góor ñu jéem a jëf baax raman li duñ yaaka joqadarama tëmk si fiar boo di jëfal sa adduna na nga bàyyi xel ci adduna li nga ciy dund yow ni muy gàtte boo dee jëfal àllaaxira nga bàyyi xel ci na nga fay yàggee nga war nga bëgg a jëf lu fa doy boo dee jëfal safara maanaam booy mooy da nga seet bi nga ca sànni woon ban diir ngay mën a muñ ci tàngaayu safara wi ni mu diir boobu ni muy gàttee nga gàttale jëf ji ngay jëfal kon safara képp koo xam ne sàmm nga ak jëf jooju da nga texe texe ju gën a màgg ci texe yi ku wuuteeg moom da nga ko rëccu ëllëg ay saxel kon ci bis bu nit ñi dekkee bàmmeel bu ne mbooloo dekkee ca di palet paleti te doomu njéeréer yooyu ñu nenoon ci bàq bi mu mat ba di génne ci suuf si di mbooloo bu bari di mis-mis yu dem doomu aadama bi bu ñu génnee ci seen bàmmeel ku ci nekk di taxaw fëgg sa bopp bopp nga tudd suñu borom ndax foofa réere yàlla amatul mu leer la ne yaa ngi jëm ca daje ba nga xam ne ba ngay dajee mboolem jàmm bu yàlla bindoon ngay dajeeg suñu borom tabaraka wa taala te balance yi ñuy peesee jëf yi ak yi ñuy fayante yéen a nit ñi ameel ak yi nga leen ameel keroogee luy gàccee foofa la nekk luy ndam foofa la nekk fii moom dara ñëpp fi ñu gaaw a jógee nag dañ ci romb rek dem bu ñu bàyyiwul xel ci loolu daanu sàggan ko ëllëgee ñu rëccu loo jëf lu mu bari bari bu fekkee ne xam nga dara ci li weesu ci lislaam am na jëmm yoo xam ne sa xel demee si ñoom rek nga xeeb li nga defoon loo sonn sonn jëf lu baax sa xel demee si ñoom nga xeeb li nga defoon lépp bëgg ko yokk day fexe ba bis bu ñëw xam ne ci bis bii nga gën jéem ko defee dafa baax bokk na ci xeetu jaamu yàlla seet ni sa bëkkër bëgg moo bëgg bu neex ci yow nga ne tey naa ko jaayanteeg suñu borom yàlla jëlaanu ko bañ ko def bàyyi ko are bàmmeel wàll yi ak wàll yi jëm yi ñu are ulama yi di sottante ñoom ay kàddu ko tax a jëm mu dal ci benn mbokkam kooku jox ko mu añ añ tuuti daal di koy defal njar neex bu mu xellee ba tànnal ko mu ne ko baax na daal di sëgg waa ji itam sëgg ba mu yàgg mu ree ne ko delloo ma ko ngir yére bi du caa génn itam da nga bëggin soow xanaa da nga koo bàyyi ngir yàlla mu ree ne ko waaw loolu la toog nangami at kooka ñëw moom it fekk si ko moom it ci dëkkam ci këram dañ ba noppi mu tàmbali ko di ko toggal attaaya bu xiimee ba yëkkati kaas jox ko mu ne ko doy na ci bàttal mu ree ne ko xanaa dañ ko bàyyi ngir yàlla mu ne ko waaw loolee mooy lii mooy fayam parce que loolu it ñu ngi koy jubla ñoom xeex ci ndax naf su ko ah daa aju ko naf su ko la ci bàyyi na jëm béykat sa noon ci gën a bon ci yow mooy sa bakkan lépp sa diggante ñaari sàngal أبغض إله عبد على وجه الأرض الهوى lépp lu ñuy jaamu tuddee ko yàlla am na ñuy jaamu xaalis am ñuy jaamu daraja am ñuy jaamu seen bopp am ñuy jaay ñuy jaamu bànneex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maanaam li ñuy jaamu rek tuddee ko yàlla yàlla ji yàlla gën a bañ ci suñu borom gën a bañ ci yàlla yi li ñuy jaamu mooy bànneex sa bakkan أبغض إله عبد من دون الله الهوى kon nit ñi ñu ngi rawante ci muñ tax suñu borom dafa ne inna allaha ma assaabirina suñu borom mu ngi ànd ak way muñ ñi kon ku muñu suñu borom àndul ak yow ki muñ nag nga xam ne suñu borom mu ngi ànd ak moom waaye nga xam ne muñ lu war a yàggalee doon ndax lu baax ñu ne nga garab gi nga ji doo ko ji tey mu màgg tey meññ tey nga wattu ko tey dem jëriñoo ko tey mënul nekk soo ko juyee da nga koy suuxat da koy suuxat ay at lay doon pour mu tóor tóor doom nañ ñii dañuy ji seen garab duñ ko jaarati mu wow dee ñii dañuy ji seen garab duñ ko wattu rab yi ñëw ak jur gi lekk ko ñii suuxat nangami weer bari mu dee ñii nangami at ñi nga xam ne nag ñooy àgg ca àgguwaay ba dañ ciy sax rek maanaam ci sama wàllu alam di ko suuxat ba ma muy meññ. moo tax ñu ne garabu wilaaya lu yéex a màgg la kon ki koy am mooy ki gën a mun ci ay moromam alayhi salaatu wasalaam nee na ak sabru nisful imaan yi maanaam muñ mooy genn wàllu diine kon ku amul muñ amuloo diine genn wàllu diine nga am kon lu néew nga am ci diine kullama azuma maqlub wa sharafa qaala صعب مسلكه وقال طريقه وقصرت عقباته كلما عظم المقيد والشرب صعب مسلكه وقال طريقه وقصرت عقباته الغزالي رضي الله عنه bépp waxtu bu xamee ne sa xol xëcc na la xam lu màgg lu am ngeen ëllëg nga fi ci yéene ak dugg ci di ko wut da nga dimbandikoo toroxlu kon te suñu borom yombal ko bul xam sa am wala sa mën wala sa pexe wala sa kàttan da nga nangoo génn ci lépp suñu bugg ma sànni fële sonal yàlla lépp xam ne ci kàttanam ngay jëf ci kàttanam ngay amee fi am ci kàttanam ngay matale it li nga jëf li am na xosna fi ali min kamaali bi toroxlu ak mokk-mokk lu wàcce sa bopp buñ demoon ci mbiri julli mu gis ne mooy li gën a fort ci julli bu gis ne yéefar bi bi yéefari kaw ak suuf weddi yàlla weddi lépp sax amoon lu ko jafe wala mu jàq am lu ko tiis mu woor torox lu mokk mokk lu nangu ne suñu borom am na tàllal ko ay loxoom mu may daa ci téere mu am seet bind ka warra a jankin xaanu lillahi saatan wa axlasa fi ma raamahu wa huwa musiku wa ma xaaba fi ma raamahu bi fasaadihi wa ma zaala yaxsu fi lanaami wa yasfiku fama baalu man billahi tuula xayaatihi yuwaxidu bil ixlaas an huwa yahliku benn yëfa bi wax Genghis Khan mooy Genghis Khan ci mëngam li la woon mooy ñooñu nga xam ne ñoo daloon ci kaw jullit ñi booba Bagdad mooy capitalu l'islam ñu faagaagal jullit ñi dex boobu ñuy wax Dibla mooy Tigre ñu sànni ci nit ñi fab kër guy téere yi soob ca ba nit ñi di si jaar mu nekk pom ñu rey si jullit ñi ay junni junni junni gis xaan moomu ba kon ci xeet nit woowu toog na am soxla su ko jaaxal mu te gëmul woon yàlla waaye daana sikki sàkka mu woor ñetti fan su mu yëreem ba des lu suuf lu ko suturaal furuñ ci suuf si woo suñu borom ñaan ko suñu borom may ko la mu ko doon ñaan te benn saa rek la ko la jublu suñu borom ñaan ko te teewul li mu rey ci mbindeef li mu def ci lu bon kenn xamul lu mu toll mun nag sama baalu mun lillahi tuula xayaat yi waxi di bil ixlaas yi alluwa yaxliku maanaam seen daal di bind ci kanam laa déedéet mu ne ndax kon gannaaw gentis ànd moo def loolu suñu borom wuyu ko kon jullit bi nga xam ne dundam gépp mu ngi wéetal yàlla ndax moom dana perte ëllëg mu ne déedéet ndax bu ñaanee suñu borom dana ko delloo mu ne déedéet laa mënul nekk moo tax mu bind ba tey moom maam Cheikh ni wa inni la ad'u llah wal amru dayiqun alayya fama yanfaqu an yatafarraja rubba fatan suddat alayhi wujuhuhu asaaba lahu fi da'wati llahi mahraja danaa ñaan suñu borom di ko ñaan fekk mbir mi tiis xat gën a doy kéemaan inni la ad'ullah wal amru dayiqun alayya waaye fu maa yanfaq an yatafarraja bala ngaan xef ak xippi rek mukk wëggati ku baax rubba faqan suddat alayhi wujuhuhu asaaba lahu fi da'wati llahi maxraja bari nag jëmm joo xam ne mbiram yëpp tëju na xamatul fu mu jëm xamul fu mu jublu amatul benn pexe amatul benn yaakaar ñaan yàlla suñu borom nangu ko ñun ñu mbiram yëpp jubal ko wali naa juróom samaawaati mel noonu kon ñaam ak muñ la suñu borom moom la suñu borom jax leen doomu aadama rawatina jullit muñ ak ñaan dama la jullit ci jubali ko lépp lu ko jafe ñaan te muñ bañ a xaat ndax ñaan nit ki mën na ñaan tey suñu borom bàyyi ba mu faatu mu may ko la ñaanoon waaye du perte daan mën a wax li tax nga xam ne du perte lam ñaanoon dana ko jëriñ ba jëriñ ko lu ko na mu ko foogee woon yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam ak yonent yàlla Haaruna alayhi salaatu wasalaam ñaan nañu suñu borom ko alagal firawna ba suñu borom nangu ba xamal leen ne leen nangu na ñaan bi firawna toogaat fii dundaat ñeent fukki at ñoo xam ne bopp méttiwu ko wax nañ ko ba tàyyi ci yoon yu bari da ngay ñaan suñu borom mu xam ne lii bu ñëwee du la jëriñ wala du gën ci yow mu nangu ñaan nga watale watale la ko leneen loo xam ne moo gën lii boo continuer di ñaan di ñaan ba nga xam ne bu ñëwee jëriñ la mu soog la koy jox bu fekkee nag bàyyi nga ñaan gi doo ca jël yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne suñu borom dana nangu jaamu fekk yàkkamtiwul soo yàkkamtee nag mu bàyyi la yi la xool kon na ngay dëkk di ñaan dëkk di ñaan dëkk di ñaan footol bi di ñaan dëkkee mun dëkkee mun dëkkee mun footol bi di mun da ngay seet fi ngay dem fi ngay toog fi ngay waxal fi ngay àndal li ngay gëm da ngay delloo si sa xel bu may bopp lu ñëw fëkk la boo ko defee rek da nga ñàkk lu bari bu ñu nee jigéen bi nga wax nga def li gën a mën a dimbali nit ki te muy dëgg koo xam ne kenn waru ko fàtte kenn waru ko wan gannaaw moo di ragal nit bu ñaaw suñ ul xaatima waaw mu fu mu nekk sa kanam war na bopp war na dalal sa xel boo gàttul xel lool ñu ko waxoon rek sànq ci tàmbali nekk ci réer ba mu daataan dee suñu borom gindi ko di nekk ci jub ba jëf yenn jëf yoo xam ne mooy waral ak texee dem ba xaw nit di ko nit yàqu yenn jëf yooyu ba tax ñu ne nit bu ca xeeb kenn jëf bu ca xeeb lenn lu baax bu ca xeeb lenn lu bon bu ca xeeb lenn lu bon li ngay xeeb dem ko mën na sabab sa al lu baax ni ngay xeeb ba bañ ko def mën na fekk ne boo ko defee mu sabab sa texe boo xam ne texe boobu dara mënatu la yàq lay doon xam ngeen ne jaysul xasira jaysul xasira bi ñu koy waajal dégg naa Ousmane indi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne Ousmane mënatul def lenn lu ko lor gannaaw tey jii koy ak su baan ak ahli badrin moom daal su ma wax xëy na xamu leen ndax suñu borom soppu na ahli badrin ne leen def leen lu leen soob def mu leen digal benn baax laa ci mujj war na xeet ci lu baax ak lu mu mën a tolloo bu ñu ko fekk ak ñu ko tàyyeel ñu toll di ñaan borom subhanahu wa taala kon nag gannaaw xamuñu kanay am nit bu rafet ak kanay am nit bu ñaaw mënuñoo dogu ci ne diw moo gën diw xamagu na ci li ñuy mujjee amuñu ko lu tax teggin baax ndax teggin gannaaw bokk ci ñuy waral nit bu rafet am teggin bokk na ci li ñu war a gën a xintoo ak fàttaliku dee seetee ne lu mu def lu mu bu dee gën gën poussé yi nee lu baax nee lu bon daañu ko tegal ci kanam moom de ci mbindeef yàlla yi moo xam nit nga yërëm wala bàyyi mën a wala leneen lu mu doon dana waral yàlla yërëm nga dina bokk na ci yi waral itam mujj bu rafet yërmande waaw ma am solo nit day am xolu yërmande jullit day yërëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne nag fii kulli zi kabidin xarraa fii kulli zi kabidin rabbin rahmatun ne man rahima rahima walaw dabixata usfur boo yërëmee bakkan bu mu doon rek buy dund ak lu mu mën a doon suñu borom dana la yërëm mu ne bu doon picc bu ñu rey sax wàcc ko nga yërëm ko suñu borom dana la yërëm nit ki bari yërmande bari njëriñ ci doomu aadama yi bu dee ñëpp sax suñu borom da ko yóbbu sa borom ndax dafa ñëw suñu borom tabaraka taala dafa am meloo suñu borom yu mu meloo moo di yërmande ak tabe bu tabee suñu borom du ko lakk bu bari yërmande suñu borom du ko lakk bu dee yéefar ak bu dee jullit yëpp kon ndax war na ci jullit bu nekk mu it jikkoo jikkoo suñu borom yëpp bu dul kibriya rëy rëy moom suñu borom rek moo ko jagoo te ko ci fekk mu lakk la kon waaye yeneen jikkoom yëpp doomu aadama war na koo jéem a meloo ndax kon suñu borom azza wa jalla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha tabaraka wa taala xalaqa aadama ala suratihi beneen riwaaya na ala surati rahman kon loolu suñu borom yi jaam war na ko jéem a meloo ndax nit ki ñu waxoon sànq wilaaya garab bu ñu ji war koo suuxat ba mu mag loolu jëmmi nit mu mel ne dàttu garab bu ñu dagg teg ko soo ci bëggee këll wala nga bëgg ci mbàttu wala nga bëgg ci toogukaay loo ci mën a bëgg rek yaay fab sa jumtuwaay ko yàtt di ko defar ba mu mel da nga bëgg jëmmi nit ki noonu la demee yaay xeex ak sa bopp ci jëmmi melo yu bon yëpp yi nga xam ne meloo xol yu suñu borom bañ la ak def ci sa bopp meloy xol yi nga xam ne mooy melo yu rafet te mu jaral lu nekk moom lañ tuddee ak taxliyatu wa tahliya kon bokk na ci gannaaw nit ki xamul lu muy mujjee te loolu war na muy am njàqare fi mu topp ñàkk wóolu fi mu ñàkk wóolu xamul lu muy mujjee ëllëg xamul na muy dee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yamuutu lmaru ala ma aasha alayhi nit ki ci li mu dundee lay deewee moo tax nit ki melo wu mu bëggul dee fekk ko ca bu mu ca nekk bërëb bu mu bëggul deewe fa fa dem yamuutu lmaru ala ma aasha alayhi wa yuxcharu ala ma mata alayhi doomu aadama it ñu ngi koy fang bis pénc ba bu dekkee melowam deewee woon loolu moo tax deewul bett la nekk di xatar ndax xamul lu mu fekk nit ki di ko xalaat xamul lu mu fekk mu ngi yéenee rey nit ki wala mu ngi yéenee jënd sàngara naan wala mu ngi yéenee def nangam ji loolu nekk ci xolam dee ñëw melo woowa lay dekkee waa qadarullah wala sama kon yamutu lmaru ala ma aasha alayhi wa yuxcharu lmaru ala ma mata alayhi lu mat ragal la suñu borom bu fekkente nit ki soril la ci xelam àllaaxira ba mel ne lu dul ñëw ba mel ne àllaaxira amul ndax fàtte na ko ndax du ko xalaat mukk ba dutu ko boole ci dutu ko sóoraale daal du ko boole ci ay mbiram na seetlu dellu si na suñu borom dana am mbugal yu muy gaawee fii ci àdduna bari na koo gis tànkam dam te am na lu mu defoon moo ko waral suñu borom bàyyi ba jamono yam ko gën a bëgg mu def ko bari na koo mu ñàkk bëtam wala mu ñàkk xelam wala mu ñàkk loxoom wala tawat ju bon dal ko wala leneen fekk na lam defoon la junni musiba adduna boo gën genn warlaatu musiba àllaaxira yéefar dana jëf jëf joo xam ne dana tax ak texee dem tar te xëy na tax su borom bëgg koo xéewal ci àdduna lu tax du am dara ëllëg muy woyofal mbugal na mu may ko sukuraat su sedd dee bu sedd lu mu daataan dee su borom ganeel ko ganalee ko am lu bëgg lépp am teraanga deem sedd ngir mbugal ëllëgam dara du ci wàññi ni ki nga xamee ne dana fekk ku nga xam ne suñu borom gërëm na ko ba mu am ngërëm mu am martam bu mu ko bëgg a jox ak maqaama ëllëg jëfum lu toll noonu mu mettil sukuraatam ngir bari tuyaabaam ngir bu ëllëgee mu mën a yéeg mu mën a yeyoo yéeg ci maqaama bu kawee boobu la nga xam ne du ko wër gis doomu aadama boo xam ne amul fat amul maarifa amul ilm amul sabr amul taqwa bu mat suñu borom dencal ko ëllëg lu gën a rëy ba ay wàll yi di ko ñeer waaye fokk dana jaari ci jaar-jaar yoo xam ne bu góorgóorluwul dana tiis ba mu la cay àgg ëllëg kon boo ragalul suñu borom ngir soril nga àllaaxira ci sa xalaat yi da xalaat ne dana fayantoo ci wala ci dañ moom suñu borom du du fant waaye dana dendale te def kanam mu daaldi koy won ci adduna léegi loolu rek sax boo ko seetloo dana jaar wattandiku yu bëri rawatina na mbiru àllaaxira seytaane ku ñuy war a wattandiku la ku ñuy war a xalaat la ci waxtu woo meree ak waxtu woo bëggee waxtu woo meree daal di taxaw na tollu nga ci diggante bu mu la gën a mën a lore li mu lay digal li muy def ci sa xol lépp ak li mu lay bëggoon li mu lay xeer lu lay alal rek la ni nga ko war a ragale ci boo meree nga ko war a ragale ci waxtu woo xam ne def itam dëkk nga dëkk dëkk dëkk ko war a ragale ci boo meree nga ko war a ragale ci waxtu woo xam ne def itam dëkk nga dëkk dëkk dëkk kon kon jëw jëw bokk na ci yi metti sukuraat jëw ak sellal sa bopp ban waxtu la jot takk saan jot na cinq heures ak ñaaw njort ci jullit nit loolu mujj rafet mujj ñaaw sax ñaaw njort ci jullit nit baaxul ku jaar fii bis dama nekk fee nga ne ci la jëm day màndi ji day naani yaa ngi daje di wax nga ne naan moom la ñuy wax parce que te mbiri jàmbur yi te loo leen mën a waxal ci yow aay mu ngi ci yow bi ci yow mbay la sëkk nga war a koy xalaat bu dégg bëccëg di ko bëccëg nga di ko balaw nga wàcc sa bos bopp dem ci jàmbur yi di ko xalaat day waral mut bu ñaaw moom jëw ak ñaaw njab ci doomu aadama yi bu fekkente ne jëm ji nga xam ne bu la meree waxal la lu dul dëgg ci lu aay gis bi la gërëmee waxal la lu dul dëgg ci lu baax mooy kan mooy ki maanduwul yoo xam ne dina maandu ci nga meree ak ci nga jege nit ki boo ko meree waxal ko luy dëgg rek bu ko sosal boo ko bëggee mën gënal leen ñëpp waxal loo xam ne waxal li nga xam ne ñoo ñëwee nii mën nga ko waat ci dëgg la moom rek te bu dëgg jotee na nga ko nangu doon dafa dal sa kaw bopp itam ndax gàcce adduna moo gën gàcce àllaaxira gàcce adduna muy gën gàcce àllaaxira bu ñu gën a woyof moo ko gën a yomb gàcce àllaaxira moom dafa dafa def na bëri bu nga njëriñ lu teew bu mu ëpp nag moo yóbbu nit ci lu bëri tooñ yu bëri bu njëriñ lu ëpp bu njëriñ lool loo seet ndax njëriñ yi gën a lor keneen loolu la dee day tàbbal julli si def day tàbbal julli si def xewle ñëpp ku ñëw ndax nit ki yeneen moroom yi nitam rek ko mën a jëriñ kon gannaaw munu ma ñàkk jaxasoo na mu seetlu jaxasoo bi ñu ñu bare ngi ci ay mu bare ngi ci ci jaxasoo gi ak daje gi ci la ñuy waxtaane buñ dee waxtaan suñu lamiñ wii mu mën a wax lu ne alak la nit kenn kuy dem rek du jël waaw du gis ku mu ko waxal nit kenn kuy dem rek gisul kenn néew na bu muy day fenn kenn kuy dem rek jaxasoo la kenn néew na lu muy giñee ci yàlla nit kenn kuy dem rek andu la kenn néew na bu muy duggee ñi nga xam ne lépp loo def muy lu baax muy lu bon sa xalaat cee jëkk nit ki lu bon lii te neex ci bakkanam bu ci dugg mukk te njëkk ko xalaat faaw te bu koy xalaat seytaane bu ko xalaat lool ca mujj ak la muy indi daf koy xalaat lool rek ci lii la mu baaxee ci moom ni mu ko bëggee ni mu neexee ci moom ak yooyu da koy xalaat lool. bu fekkente nag doo di jaxasoo ñu war a delloo si xel ci li gën a mën a lore ci jaxasoo moo di lamiñ sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama dana wax benn baat boo xam ne du si jublu lu dul reeloo ñu mu toogal yamal xiyaamati dana ci xalambaay ci xuri safara juróom-ñaar fukki nawet juróom-ñaar fukki nawet yi muy muy rek ci xóotaay te mu ngi ci biir safara wi mu di ko lakk muy wéy ci xóotaay ngeen ne safara day am na béréb yoo xam ne dafa mel ne bëñ bëñ bañit bu tooy boobu du murum bi xam ne boo ci duggee da ngay noor ba sa bopp sa karaw bopp sax day noor te moo gën a tàng ci adduna lu gën a tàng am béréb yoo xam ne day mel ne pot boo xam ne dañ ko daaj suude teg ko ci safara si gën a tàng muy tàng rek na ci mbugali safara kenn mënu la xiyaas ni mu baree ak ni mu méttee ni mu tiisee yii nga xam ne tamit kat lu sax mu ngi aju ci bàkkaaram rek mu sax ci benn xeetu mbugal rek wala muy dem ci façon mbugal bu ne bu jógee ci biir jëm ci biir jógee ci biir jëm ci biir borom xeeti bàkkaar yu bari moom la noonu di dal toog ba mu yàgg li mu bëggoon ci adduna mel na da nga daan tëj cigarette boo toogee diir namm ko ñu mar loola ko ba nga xam ne dootoo mën a toog dootoo xamati ko dootoo yëgati sax safara bi ñu teg ay xuri safara yoo xam ne ndox mi gën a bax ci adduna ngay xuus di ko wut ngay xuus di ko wut di xuus di ko wut seeram bi di dagg di fa des di rocci ko di fa des di rocci ko di fa des ba yax yi des di continuer di fii di noor di jóg di la di ko làmb di ko làmb ba nga xam ne yax yi tuutee ci des bu ñu bëgg a seey ñu delluwaat la parce que yaram bi melaat na meloon nga continuer ci loolu axqaaban axqaaban mooy jëm ay xoq ba xoq ay junniy junniy junniy at la alhamdulilah kon alamru bil ma'ruf wa nahyu anil munkari bokk na ci farata yi di digle lu baax ak tere lu bon sallallahu alayhi wasallam dafa ne man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa afu limaani boo gisee mbokkum jullit wala keneen muy def lu aay mu di ak may wala mu di luy mën a lor keneen su borom teg na la bu fekkee ne yow sa bopp mën ngaa taxaw dindi ko boo ko deful bu yomal xiyaame dugal nañ la ci bàkkaar fekkee ne leer na la ne amuloo kàttan boo ko mën a dal di fanqee ndax nit ki mën a loo ko dara mën nga wax yaakaar nga ni boo waxee dana ci jëriñ boo waxul bàkkaar lañ lay bindal boo yomal xiyaamee daañu ko seet mu nga ci téere ba ñu bind loolu ci tëree nañu ko fekkee ne mënu la ci loolu yëpp na la naqari ci xol ba nga xam ne lii moom xam nga ne naqar na te ngir yàlla tax loolu doo ko la ci misal parce que loolu amul dara ak waa kii sa mbir ci yàlla suñu borom yàlla jëlaat moom ak sa kamaanu ki nga xam ne suñu borom noppi woon na démb noppi bi mu demee jàggi ne kat suñu borom dafa noppi noppi boo xam ne jëf dootu jëriñ dara déedéet suñu borom azza wa jalla dafa nekkul ci jamono nekkul ci béréb nekkul ci jamono ku nekkul ci jamono jamono yëpp nga tiimandoo mu mel ne kon sa dund gi dund nga ko ba mu jeex ba mu xam fi ngay jaar rek fi ak yéen mu sàkk sabab yi tëral sabab bii boo ko defee rek dana la fanqal lii sabab bii boo ko defee dana la fanqal lii fanqal lii mu mel ne que yow leer na la ne ëllëg yaa ngi jëm koo xam ne ragal nga fa ñu ne nit ki de bu saraxee sarax dana fanq déegu ñaaw bañ fa jëmee nga xam ne boo saraxee mucc ca loola boo saraxewul doo ca mucc suñu borom xam na moom ndax da nga sarxe wala doo sarxe waaye nag sabab bi mooy sarxe si boo saraxul rek doo mucc boo sarxee mucc nga xam ne kon ñii wax naan waaw gannaaw suñu borom noppi na ci li muy bind dootu ko far kon gàllaaj yi lu muy jëriñ kon li ñu naan ku ko def nangam gudd fan lu muy jëriñ ndax suñu borom bindal na la fa nga yem ba dootu déedéet demeewul noonu fekk nag suñu borom gis na la nga dund ba def nga sababu lii def bu nga ko def dana tax dana la fanqalle ba mu jeex ndax suñu borom nekkul ci benn jamono jamono yëpp mu la nekkandoo tey ak démb ak ëllëg amul ci suñu borom lépp a yemanoo suñu borom naka béréb yi dama amul béréb ndax béréb boo gis suñu borom a ko sàkk te ba nga ko sàkkagul ma nga nekk fa na mu nekkee woon la nekkee li yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne suñu borom moo bind aras te ba mu bindagul aras na mu nekkee woon bi mu bindee aras ba tey noonu la nekkee ndax moo sàkk béréb kon bu nekkee ci béréb ba mu sàkkagul béréb boobu fu mu nekk suñu borom màgg na ba ëpp li ci béréb béréb mënu koo ëmb jamono mënu koo ëmb ñu leen fexee julli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkku si yéen ngeen dina ñaanal daje bi daje bi lislaam la daje bi diine la daje bi sàkku mucc ëllëg la ndax mbooloo jullit fu ñu daje war nañoo dénkante war nañoo ñaaxante war nañoo fàttalente saxaaba yi dañu daan def fu ñu mës a daje bala ñoo teqalikoo jàng wal asri inna linsaana la fi xusrin ba mu jeex kenn ku ci nekk sa xol dellu si ci li lay xaar ëllëg ak na ngay dajeek loola fu la loolay féete lu mu lay yokk lu mu lay wàññi fàttaliku it li nga weesu lu ci am solo nga ñaan suñu borom nangu ko lu ci dul noonu nga ñaan suñu borom jéggal la ko ndax jullit warul di wéy rek ne bàyyi ma ndax dañu koy laaj ëllëg te bàyyi ma kenn du ko laaj moo tax bàyyi ma loolu jig na ko waaye nit loolu jigu ko ndax jéego bu mu jéggi kàddu gu mu wax jëf ji mu def daañu ko ko laaj ëllëg te dana jaar ci jaar jaar yoo xam ne lu mu defoon ci lu baax dana ko xeeb su mu defoon ci lu dul noonu it dana ko rëccu te àdduna ni mu gàtte bu ko nit doon jaamu lépp lu mu fi ñëwee bi lu muy demit bu ëllëgee mu xeeb ko bu musul woon def dara dul noonu it xam ne kenn bindalu ko benn bàkkaar it farlu boobee mu farlu woon ba jaar ci yoon woowu bu ëllëgee mu xeeb farlu gi ndax ñu fi jóge ba nekk barsàq ñu leen ne woon wax leen li leen gënal ci àdduna ñu leen gënal ñu defal leen ko duñu wax lu dul dellu àdduna rek ndax ñu jëf fi jénn jëf lu mën a doon maanaam dénkante bi nag ak ñaaxante fàttalente du doy mukk donte jamono may nu ko itam war nañuy toog ay jataay di fàttali ko di ci sunu kanam muy dellu si ci sunu xol donte diir bu néew lay sax ci sunu xol it nu fàtte ko it ba tey am na njëriñ bu ëllëgee doo ko xeeb li ñuy faral di wax bis bu nekk ne nit ku toog ba mu yàgg sax nga ne astaghfirullah al azim fukki yoon wala laa ilaha illa allah wala allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim su ëllëgee suñ la ko fayee doo ko xeeb li baax nag gannaaw du doy mukk te lu mu gën a bëree la gën war nañ fu mu toll di ci jéem bis bu nekk lu fexe ba am nu mu def lu xam ne bis bii ci sunu dund tertuñu ko ndax dund gi lu mu yàgg-yàgg donte téeméeri at la it bis boo ci deful dara ak perte la ëllëg koo xam ne da nga ko rëccu rëcc bu wex te bis ci seen bopp dañu nooy seede ëllëg di nu seedeel sunu jëf ni nu ko béréb yi di seedeele béréb yi def nu koy seedeel waxtu yi dina ko seedeel ni mu ko malaayika yi di seedeele bu ëllëgee ci kanam yàlla te lépp lu ci bàyyi xel soppi suñuy jëfin ñu toog ba mu yàgg ñu dellu siwaat suñu gisul kenn nit ku nu wax dara it nu fàttaliku li nu weesu liñ ci sàggan ak liñ ci jàdd mu naqari nu ñu tuub ko def ci sunu xel xam ne ëllëg daañu ñu ko laaj bi ñu ko bàyyilul li sunu kanam it te xamuñu nu mu toll kenn xamul ëllëg nga fiy jóge wala gannaaw ëllëg te fii rek ngay mën a defee li lay jëriñ ëllëg kon ëllëg bu fekkonte ne xam nga li la dese ci dundit da nga xam ne doyul dana la wóor ne doyul kon doomu aadama bi li nga xam ne mooy tax xolam di bees waxtu wu nekk mooy am yërmande ci jaami yàlla yi mooy di toog di wéet di fàttaliku sa traayu bàmmeel fàttaliku sa taxawaay te kanamu yàlla ëllëg di seet ñi ngay àndal ak ñi ngay jaxasool seet béréb yi ngay dem ak yi ngay moytu ndax nit ki loolu lépp bu fekkee ne di ko ci xelam fii it gën a wéet xam li ko jëriñ ak li ko lor te nit moom li ñuy wax rek ne béréb day suub nit àndandoo day suub nit jamono day suub nit kon cuub gi gën a rafet mooy gi gën cuub gi lay jàppandi la jëf ju baax di la ragal loo jëf ju bon cuub googu moo am solo li ñuy wax al wasat wal muhit tubaab di wax milieu dafay lu am solo ci nit daanaka ni nit ki mel rek moo ko ni meloon moo tax nit di war a créer boppam milieu bu ragal yàlla maanaam muy béréb boo xam ne daf fay fàttaliku yàlla suuf di fàttaliku ëllëgam di fàttaliku jëfam yërmande ji ma waxoon ndax sunu yërmande ci ñi nga xam ne ñun noo leen war a yërëm muy ñu nu féete suuf mu di sunu moroomi doomu aadama yoo xam ne benn noo leen ëpp at wala noo leen ëpp man-man wala noo leen ëpp am-am wala noo leen ëpp lu mu doon ak baahima yi ak ndundat yi yëpp yërëm leen dana tax suñu borom yërëm nu sallallahu alayhi wa sallam nee na fi kulli di kabirin xarra rahmatun lépp lu am res wu tooy yeyoo na yërmande ci nit te bu ko nit ki yërëmee tey yàlla yërëm ko ëllëg mu ne irhamu man fi l ard yarhamkum man fi samaa yërëm leen ñi ci suuf yàlla yërëm leen moom mi ci kaw ëllëg kon yërmande dana tax suñu borom faral nit bàkkaar boo xam ne waru ko woon a far mukk waru ko woon a far mukk yéene sa moroomum jullitit li nga yéene sa bopp dana woyofal sukkuraat te lépp luy woyofal sukkuraat jar na lu nekk suñu moroom dafa ñoo umpal li nekk ci sukkuraat dana am kàddu yoo xam ne daana ko di waxtaane dellu ko waxtaane dellu ko waxtaane ngir mu sax ci xol yi sukkuraat soosu mat di fàttali ko dañu ne fii doomu aadama bi tëdd ñu wàcce ko lalam tëral ko ci suuf dootu jëriñoo alalam dootu jëriñoo këram dootu gis ay mbokkam ak xaritam malaayika rek lay gis ci biir bàmmeel waxtu bu ñu ko tëralee noonu ba mu bokki bëtam yi jëme asamaan di xool malaayika yi jël ci roox gi tànkam yi tàmbalee sedd furu gi toll mu sedd diggante boobu mën na gaawe fi nun na benn minute wala benn seconde yàggee ci boroom ne fukki junni at naka noonu mën na yàgg fi nit ñi tiim ci tawat sukkuraatam mel na lu yàgg fi nun mu gaawe ci borom ne xef ak xippi sukkuraat it mu yàgg tegtalewul na nit ki texewul ndax doomu aadama bi dana juum njuumte yu bari suñ borom yërëm ko fas yéene mu bañ a deme dugge bàkkaar ci bàmmeel mu teg ko sukkuraat su metti mu fóot ko ba mu set mu dee dugg bàmmeel dafa yóbbaale benn bàkkaar dafa fekk benn mbugal bu malaayika yi ñëwee dikk ci merew rafet boo xam ne du ko tiital naka noonu doomu aadama dana jëf jëf yu ñaaw yu bari yeyoo safara su metti suñ borom yërëmu ko woyofal sukkuraatam ndax bañ ay ñaawteefam wàññi ko loolu yépp lu ñuy war di bàyyi suñuy xel la fu mu toll ndax buñ ko fàttee it ma nga fa te dee moom ku nekk gëm na ko ndax bis ku ne ñuy gis ñu dee te ku nekk xam na ne danga ko def gannaaw nag du mooy mukk te fokk nga jaari ca war nga seet la ca gannaaw di ca bàyyi xel adduna nag day géej goo xam ne dañ ciy suux rekk di wéy mu indil nu ay soxla indil nu ay problème indil nu lu nekk daal di ñuy fëkk suñu xel dootu dem ci yi gën a rëy te duñu nekk jaar-jaar yi gën a doy waar te duñu fa nekk te du fa jóg mukk mu nga fa àdduna tax ñu fàtte ko wala ñu woyofal ko danañ dem ba suñu xol di gën a wow ba buñ koy wax duñ ko sax bëgg a dégg luñ bëgg a dégg ki koy wax dana dem ba doomu aadama bi lépp loo xam ne ni lu jëm ci ëllëg la daf koy bañ a dégg du ko bëgg a déglu ndax daf naan day yàq àddunaam kenn ni ku koy xalaat te àdduna day yàqu mu ne de waaye àdduna ji yàqu moo gën àllaaxira ji yàqu te àllaaxira ji yàqoom yàlla na ci musal ja yàlla musal jaam ñëpp ndax dara jëru ko rëccu fa rëccu gën a wexe la doomu aadama di rëccoo mooy fi nga xam ne dootu mën a dabaatal jëfam mukk lu wéy woon wéy na lu ñu ko baalul woon wéy na te nit ki moom bu fekkee ne li muy dund jamono bu gàtt la lu wéy woon wéy na lu ñu ko baalul woon wéy na te nit ki moom bu fekkee ne li muy dund jamono bu gàtt la te soxla soxla yi nga xam ne bari nañu du ko may ni mu waroon a jaamoo yàlla ni mu waroon defal xaalis yàlla dafa war a seet yi koy dabaatal yi koy dabaatal mooy yi doon waxtaane léegi gannaaw yërmande yàlla bi ak yéene sa moroom jullit mu nekk li nga yéene sa bopp sa lamiñ itam nga wàññi ci jëw wax nit lu ñaaw wala jaxase diggante ñaari nit ñaari jullit moo xam ñaari mbokk lañu wala ñaari jàmbur kii wax ci kii leneen nga dem nekk li ko ko mu daal di koy dencal lu bon ci xolam bokk na ci yi metti sukkuraat ñaaw njort itam ci doomu aadama yi dana bokk ci liy metti sukkuraat ñaaw njort sax dañu ne kenn du ko def lu dul ki ñaaw jëf ndax nit ki lu muy jëf rek lay defee moom la ñëpp di jëf waaye bu lu rombee nga dal di xalaat fu mu war a jëm ak lu mu fay wuti lu nit def nga naan nangam a tax wala nangam te sa laf sol sa dàll foo jaar dal di waxtaan ñoom yi buñ ko déggee waaw dal di jóg ñoom it ñu ci gën a am jot fuñ toog tooge fa nit ci ñuy wax dara wóoru leen ci dara dara dara wóoru leen ci te bu ko bu leen wóoroon itam musiba la yonent bi sallallahu alayhi wasallam war a fane jëwu day baat la bu bon buy tàbbal nit safara ñu ne quoi bu fekkee ne nit ki mu jëw li nga wax ci moom dëgg rekk la nag mu ne booba nañ nga ko jëw ñu ne ko budul dëgg nag ñu ne faqat baxattahu booba mooy loolu mooy buxtaan buxtaan nag li fen di rëy rëy rëy ak li jëw di xaraam lépp ñoom ñaar ñëpp moo leen gën a xaraam ndax buñ leen boolee mooy soog a doon loolu te xol bi ko génnee mooy xol bi gën a tëx maanaam fen ak jëw boole fen ci bopp moom dégg ngeen ñu ne wala maa yi sax daañoo ràññet la ñetti fen juróomi fen bu dagan ak bu ñu sib ak bu xaram ak bu war waaye xam ngeen ne fen moom bu ko nit defee rek te du ci ñeent yi ci def fen wi day yéeg ba dem aras dal di seedeel borom ne man day maay fenu diw bu ko defee suñu borom rëbb ko malaayika yëpp rëbb ko naka noonu jullit itam bu rëbbee moroomam rëbb bi day but juróom-ñaari asamaan dem ba àgg aras bu fekkente ne waa ji ñuy wax loolu yeyowu ko rëbb bi dellu si wër pàcc suuf yi bu fekkee ne borom mi ngi ko def loolu yi yendoowu ko mu dellu si ki ko defoon ak dugg ci moom ñaari jullit ñi mu doon nag waxtu woo xamee ne songoonte nañu lu ëpp ñetti fan kenn bañ cee tudd moroomam wala bañ cee wax ak moroomam malaayika yi nga xam ne bu ñu leen wàcc di balul jaam ñi seeni bàkkaar duñ leen balul duñ leen ci boole te duñu nangu it seen ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ci gënal yàlla ci nit ñi mooy kay ki tax ba yàlla bëgg nit ñi ak kii tax ba nit ñi bëgg yàlla kii tax ba nit ñi bëgg yàlla mooy ki leen di wax meloy suñu boroom ak tabeem gi ak yërmandeem gi ak suturaam si ak taaram bi ak kàttanam gi ak coobareem gi yërmandeem gi yaatu gi nga xam ne su ko neexoon rek mu sàkk jëmm ju ne ëf benn yoon rek suuf sëpp ak li ci taxaw mel nag neen mel nag neen ruu yi gëlëm bindee fi nekk ci lëndëm goo xam ne daañu fàtte lépp muy mbugal junudu samawaati wal ardi yi junudu maanaam kuréel yi suñu borom yi armeem yi xam ne fu nit dajeeg ñoom ngelaw yi ci kuréel yi suñu borom yi lañu bokk yoo xam ne lu mu leen digal ñu def ko ndox mi noonu géej gi suuf si janaaw yi naaw yoo yi ak lépp lu mu dund rek xeet la boo xam ne ci kàttanu suñu borom la taxawee noteel bi suñu borom not jaam yi lenn lu mu la ci xiir rek nga fàtte àdduna ak àllaaxira daañu wax Namrud ibnu Kanaan buur bu suñu borom jeyoon dox ko àdduna muy lif lépp yoo rek rey ko xam ne noteelu suñu borom gi ak junnoo dem yoo xam ne duñu jeex mukk da ngay am sa kàttan ak wér di bàkk mu roof la nelaw nga fàtte lépp wala mu roof la tawat nga fàtte lépp wala mu roof la di gën a woyof ay fen wala ay yoo ñu la jël lépp wala mu roof la xiif dootoo am jàmm wala mu roof nga rek sax lekk lu ëpp reggaay bu ëpp mu sonal la nga xam ne lépp luy dox ci kuréeli suñu borom ci armée yooyu la bokk nga xam ne lu mu leen digal muy alake ne muy alake muy xéewal muy yërmande lu mu ci doon rek ngeen ndox bi nga xam ne sax xéewal la jeexit yërmande suñu borom la bu soobee suñu borom mu alak ci am réew wala mu alak ci nit wala mu fitnaal ko lool ngeen ndox mi ni meloon ci ndar bu yegguloo rek am si ñoo xam ne fitnaal ñu leen boo amatuñu fu ñu dëkk di taxawaalu ñii ni ñu amoon yàqu seeni kër ñu xalaat ne dootuñu see dootuñu see mën a dëkk ci mukk ci ndox ak ni ndox lewete ak ni mu sedde suñu borom fab jëmm ji dund sànni ko ci géej gi mu dal di lab wala jaanu ni ci nekk day ndey géej yéeg jën yéeg yooyu dal koy jëfandikoo loolu lépp ay ni ñu koy faral di wax rek karwaas yi suñu borom yi muy dóor nit ñi la ci kaw benn li ñuy def ëpp na bëgg ñu walbati dellu gannaaw wala ñu fàttaliku ndax lu yàgg-yàgg nit fi jàjjiwul fii dana jàjju ëllëg fa mu bu jàjjiwul fii nag fa muy jàjjoo ëllëg la jàjju di yéese ndax dana tiis dana metti am yàlla nag dafa ubbi bunti yërmandeem ubbi bunti xéewalam ubbi bunti meram ak bunti mbugalam sallallahu alayhi wa sallam nee na ki bëgg a dem àjjana rek a cay dem ki bëgg a dem safara rek a cay dem ki bëgg a dem àjjana mooy kan mooy ki fexe rek lu ko yóbbu àjjana ki nga xam ne lu mu dégg ñu ne baax na dana tax nit texe mu di ko def la mu mën ki bëgg a dem safara cay dem mooy ki faalewul dara luñ ko wax mu ne yooyu caaxaan la yii day tardeel nit yii xew yi na weesu nañ ko fekk suñu borom mooy lëm xolu nit ba waar duutu ca dugg fàttaliku yàlla duutu ca dugg ragal ëllëg duutu ca dugg muy xol bu wow bu tëx wa qaalu qulubuna xulfun bal laanahum allahu bi kufrihim ñi suñu borom rëbb ñoom la seen xol di wow ba reynul xol bi nekk ci ñuy wax kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibuuna waaye doomu aadama bi moo koy jëf moo koy fàggu rek ba xolam moom xatama la ala xulubihim wa ala samihim wa ala absaarihim xisaawatum wala masaabun alimun nit ki jëfam doo ngay wowal xolam jëfam ju bari te du tuub mukk du jéggul mukk du rëcc mukk mooy tax xolam wow ba dootu tiit dootu ragal dee bis bu nekk muy fab ku dee wocci suul dellu si di ree di wax di kaf mel na meloon rek xam ne fi mu ko suulee rek bu fiy jóg yooyu yëpp xolam jóg ni ci ak xelam dootu ko fàttaliku doole dootu doon dara ci moom loolu mooy xol bu wow ndax sallallahu alayhi wa sallam ma defe ne bàyyi naa fi ñaari waarekat wax nañ ko ba tàyyi dégg ngeen ko ba tàyyi alquran ak dee mu ne waarekat bi wax te mooy alquran waarekat bi noppi pat du wax te mooy dee dee waroon nu waar lool dee waroon nañu di waar ñu dëkke ko di ko gis ba dootuñu waar te nit ki nga xam ne ne da nga daan ànd ak moom di wax ak moom muy nit néew xamul yàlla moom ko ci njëkk a dee jékki-jékki suñu borom jëlee ko fi xamuloo lu muy fekki dee xamuloo lu ne ca gannaawam da ngay xalaat rek waaye xamuloo lu mu doon ñu yëkkati ko gas kan mu xat gudd tërale ko benn wet nga xam ne su dundoon sax du mën a jóg suuf si war ko suul ba mu fees ñu jël ko foofu de ah ku sañoon fekk fa jëf ju rafet ku sañoon rek fekk fa jëf ju rafet ndax amatul benn pexe amatu fa pexe amatu fa nit ki bu ñu dellusee wàcc ko foofu moom